People, this topic again is embarrassing, disgraceful for me. Simply because I play a part of it. I definitely play a part of this topic too. jërëjëf sëñ Bamba. jóg leen jóg leen bari sax ya bari sax ya jóg leen jóg leen jóg leen

wallaay Bamba ñun dem nañ Touba Touba dañuy dem Touba bari saxar ya dañuy dem Touba dañuy dem Touba alaikum YouTube. How you all doing? Still just celebrating the Magal Tuba. And we're gonna do the update of what's happening. You know. <clears throat> jaamu ngeen fanaan jaamu ngeen fanaan I want to play some Magal vibes still celebrating the Magal Touba asalaamaaleykum mbokki jullit yi asalaamaaleykum mbaadi mandikool asalaamaaleykum everyone today we are gonna speak in three languages what's the first one again Anglas Wolof and Mandinka will be last one inshallah to try and fit in all in one video that hopefully not gonna take 10 hours hope so so we're gonna update that's Gambia current affair that has been happening that's why about the gay Zimbabwean woman that slept with the 20-year-old Gambian guy on a live video. We're going to be updating his interview with Babaja, what he said and what other people say in other videos that knows the story and my thought about it. Ha! How can I say all that in three languages? Anyway, we shall see. Welcome. Take your cup of tea, coffee, or plate of food, or better, just drink water if you're vegan or healthier than Ami Job. Depend on when you're watching this video, if you're hungry or not. Either way, relax, like the video, share, comment. If you want to sponsor my channel, <laughs> don't worry if you don't have money to send me or you can't be bothered sending me any money. Hey, you can do something easier. Free. All you're gonna do is watch my videos and try to watch my ad, you know? <laughs> even if you don't watch all of them, even if you watch one or two ads until the end, and you know at the end they're gonna tell you, click here to get to whatever they're trying to sell you. <sighs> Companies you might just want to click it even if you don't go as subscribing to whatever If you click it, they will know you click it. And they're going to give me little tiny pennies, you know. If a couple of you click it, I will appreciate that. God will bless you, you know. So, yeah. Let's jog on to this topic, shall we? <laughs> Let me sip into my... um. I'm drinking raspberry tea. I'm drinking raspberry tea, people. So yeah, let's jog on to this topic. Hmm. People, this topic again is embarrassing, disgraceful for me. simply because I play a part of it. I definitely play a part of this topic too. Again, one of those things that we, are fighting, you know, let's come to our culture. One of those things that we are fighting, the self-dignity, the self-worth, the self-love that we are lacking. our culture is not very good our culture didn't did well when it comes to teaching us self-dignity and self-worth not all of us so don't freak out yet some people are lucky they come from such a home a lot of us don't it's a lot of reason why we don't have the self-love and self-dignity it's a so many things that our culture is doing that feeling us you know that making us lead to all this. It's not just because Africa don't have good president and Africa is poor. No, it's beyond that. We also lacking self-love and self-dignity. You can see all over us, from the way we dress to certain decisions that we take. It took me so long to figure out that it was lack of self-love and self-dignity and self-value. And I'm praying for all of us that is still lacking it to recover it by yourself. Because you're going have to do it by yourself. It's too late for any parents to reparent you again, to teach you these things. You know it as an adult. It's all over the place. You're just ignoring it. Don't risk it all for a basket, please. It's not worth it. <sighs> Ah. God. Subhanallah. You know, our culture is easy. We're just ignoring it. Hoping to change. Hoping to get better. Hoping to get what we want and then we change. You never really get what you want in life. Human beings are greedy. You know, when I did like what this guy is trying to do, to marry to an older man who I didn't really love, but I agreed to marry him because he was showing me love. And the other thing that was more important than the love was me getting to Scotland, of course, let's be real. I regret it. Not just the old man was not good to me after he brought me here. Even in Gambia, he was showing me who he is, to be honest. But it was also just the embarrassment of even walking with him in the street, people looking at us, and just the embarrassment of him abusing me and calling me name. The embarrassment of me knowing that after I've been through all these child marriages, that I don't love the people. Still, as a young adult, I was 24. I have to put myself in another child arranged marriage that I don't love the person that I put myself in just because of I want And when I got here, I still didn't get what I want. I get nothing. There's nothing here. You work, you pay bills, you send money. Fairness, you get nothing left, especially when you come from a poor family. Unless you don't send them money, they're all going to be calling you. From your own parents to sisters, even brother, even cousins, aunties, uncles. Everyone is having malaria. Everyone is dying. The chicken is sick. The horse is pregnant. Your cousin is dying. The the hospital. We don't have no money to pay the bills. Your nieces, your nephews, ah, they have no money to pay school fees. Ah, ah, okay, they will just stay here and be useless when they grow up like you. No school fees. And you keep feeling sorry and keep sending 24 hours. So you will live here forever and you will not have nothing. Depend what kind of job you do. If you are lucky, you will have a good, decent job. If you are not lucky, you have to do I'm not saying dirty job like cleaning toilet or working in nursing home. I've done that. That's not dirty job. That's clean job. It's just little harder than sitting in an office maybe. Depend what office you're sitting, to be honest. Some office jobs are, what's the English word? Draining. Looking at the walls and everybody in the office is miserable. I'm not saying that office job. I mean nice, fancy office job that you're in a hurry to go to work, you know, with your high heels. Jokes aside, Over the years of living here, I realized that I still don't get what I want, the reason why I came here. I don't get nothing. Then it's up to me to continue being greedy and sell my dignity and do like I see some people doing, especially single mothers. It's not all. You have decent single mothers all over the world. But you have some single mothers all over the world or just single women all over the world that will sell their dignity for money When I say that, you know what I mean. I don't have to say the whole thing. Then I still have to choose to continue selling my dignity. Now that I sell my dignity and get to Scotland, I have to sell my dignity again to get the money that I come here for after I realize that it's not easy to get the money. Or I have to reclaim my dignity and remain poor until whenever. But what is poverty? I have to thank God for one thing. so many things by the way but this particular thing one day uh, this particular thing sorry that i'm going to be talking about that although i wish to have a better life growing up with no school no money pure poverty and just suffering child marriages and so many pain i was wishing to have a better life and to have a good man who loved me and we stay together and be happy but I was lucky. I never like, I want to have a nice big house, nice big car, and, to be rich and be respected or be whatever, or experience what it's like to be rich. Maybe that's why I managed to reclaim myself after I got here and find out I'm still poor. The reality is, what I'm trying to say is, in life, you don't have nothing if you don't have self-dignity. If you love yourself, that is, which a of us are lacking. I don't see how you can love money and vanity than yourself do. That is our problem and the problem of a lot of the people in this world. If you love money more than yourself, no matter how much money you have, you will not be happy. That's why a lot of celebrities and people have money are on drugs, depressed, taking tablets, They don't care about their houses and their cars. They still as miserable as worse than the worse than I always say worse than sorry my English worse than the poor person. And you go to Africa and all these other poor country, you see people have nothing, and they sit under the mango tree so happy. Not even a bed or not even a proper bed. If you have self-love, and you believe in God if you have any God, you appreciate nature, you appreciate your life, you appreciate the little things in life. Until you do that, you cannot be happy. No matter how of your dignity you sell for nothing, for everything. If you sell everything for everything and you have everything, you're still not going to have nothing, which is happiness. If you don't have happiness, you don't have nothing. We all want money. Doesn't matter what country we are from. lot of us do. Not all, but lot of us do. And this money don't give us peace all over the world. People have money. If you know what they're going through, you will stop wishing for their life. Money is so addictive. Money and wealth. The more you have, the more you want. The more you are afraid to fall for people to look at you and say that, is that not Amy who was the millionaire two years ago? and then you keep craving for more and you keep risking it all and you might even do it the wrong way with majority of the people that have money are doing it the wrong way even if they own companies they still doing it the wrong way majority of them you don't want to know how they're making their money what's behind the company the dark secret behind how they're making their money you know i'm not saying don't look for money too much we all come different reason, different way of living. But all I'm saying is, don't risk it all for a basket, please. It's not worth it. The money always the basket. It doesn't seem like it, but it is. Do you know how many people die because of money? Even you can have a nice car and you're not safe, someone can rob you and shoot you just because of a car. A car that you work hard for and bought it. Someone can come into your home just because you have a nice home and rob you and kill you and take your home or take your jewelry or whatever. Or even if they don't get nothing, they walk away. Did you not die just because of your own money that you work hard for? Am I saying don't look for money? No, hell Do you know how many people die from the wrong places that they're looking for money from and they die trying to get money? Do you know how money? Now because they have money, everything went ruined. Do you know how many people lose their life or ruin their life because they're looking for money the wrong way? Or even sometimes you look for it the right way and you get it and your life can still be ruined. Am I saying don't look for money? No. But when you come from society like mine, which majority of the people are extremely poor and can risk it all for a basket, it's time to tell us that we don't have to risk it all for a basket. Although I've been saying this so many times, I have to say it again in a different way today. Why I'm saying all before I even start telling you what happened is, this current affair I, I explained in English long ago, and I've been talking about it in my language for the last couple of days, is a Gambian 20-year-old man who went with a, transgender Zimbabwean woman in Sweden and they did the thing on Facebook Live. They had sex. Yeah, the video is still on. I'm not going to post it here and I'm not going to put the person name because if you go and watch it, then Allah is going to, in Muslim, you're not allowed to send somebody this kind of thing, especially sending it to the face, to the YouTube for a lot of people to watch. This is why I don't want to put his name too because he's claiming now that you know that he doesn't want to be in the media and that his mom want to commit want to have a heart attack when he when she find out these things and stuff you know just because in our community this is a big thing for someone to be gay or not to mention having sex with a transge transgender on a facebook live and this is seeming because this guy did this and then after he had a, he had an interview yesterday in his language with another YouTuber from Gambia. And he speak in Mandinka in the interview, denying everything, saying that this woman was drugging him. This transgender was him. That's why he did it. He didn't know what he was doing. But even the way he explained the thing, you will know that he's lying. No one drugged him. But this is just beyond sad, simply because not because it's embarrassing for the Gambian community. We've never seen this and we are a very small population and we already, our name is already ruined because of the, the, the, the news. The news is talking about sex tourism in Gambia and stuff. Gambia have sex tourism like many other countries. But the way Gambia is so small and the way the media is talking about it is making it worse. Because when you talk, anytime you talk about it, one pedophile or one person who was thinking the to go for sex tourism will now book Gambia next tourist, next, destination. But that's not all why this is sad for our community. It's also sad for the fact that after this whole thing happened, then us living abroad and the whole thing now come out and plus his interview and plus other people who knew him talking in other videos, making it clear that this guy was looking for paper. He was doing all this just to get a visa. Why I'm saying this is for us to stop risking it all for a basket. I'm sorry, but I have to say this because I cannot continue watching all. Like I said, I contribute in this too, but I regret my part for marrying somebody who I didn't love and agree to marry him. Although I've been through a lot of child marriages growing up with people that I don't love that was arranged, I still didn't learn my self-dignity and self-worth to, reject, to not allow that to happen then. But I'm so proud that I keep saying this, that it's not good for us to continue doing it. And I saved couple of people from doing this. So as much as it's embarrassing, I'm going to continue saying this. And I know a lot of you people, especially in Africa or you here and don't have the right documents You're going to take after you already have your document. Now you're saying this. No. If you watch my videos and you know human beings very well, you will know that my videos don't mean any harm. Look, it's better I stop us from doing this now, even if it's my sister or cousin who want to do it next, hmm? than continuing to, this, to, to, to encourage it. You know why? the more you lose your dignity to get what you want, the more you continue losing your dignity to get what you want until you reclaim yourself. And it's very hard to reclaim yourself. I'm very lucky with this. I have to thank God, Alhamdulillah. When you marry to these people that you don't love, not just you're refusing yourself to sleep with them, which is not fair after they marry you, cannot sleep with them. But if you look at it, these people know that But although they know that these people don't love them, we still know how to protect ourselves because we are the young one here. But because we lack the self-dignity and self-worth and self just to know who you are and have boundaries, where to stop. Hmm, that's why we can risk it all for a basket. And until we come and tell our youth that they cannot risk it all for a basket, they're going to continue risking it all for a basket. And it's not worth This man went and did this with this transgender guy. So he can use those videos as evidence to claim to get the asylum to say that when he go back to his country, they will not allow him to stay there. Because now they don't like him because he's did this. Nobody will do him nothing when he go back to his country. They will laugh at him. That they will do. Because they're not used to this. It might be hard for even to get a wife unless somebody really love him. But to kill him, no one will kill him. Especially when you already deny and say that the person drugged him. How can the person drugged him that he said in the video that he doesn't know what he was doing? when the person was going on, Facebook Live while they're having sex, before they have sex and during the sex the Facebook Live were on was on, he didn't know what was happening. He said, until the next day. That's when he knew what happened, he said. But during the Facebook Live, he was saying that, oh, we're having a lot of views. You have a lot of viewers. And the person was questioning him about Gambia and, you know, telling him to even speak some Gambian language. And he, said some wall of word. and some people don't like that. they're saying that he was trying to make it like thing. Who cares if he speak wall or He can speak proper Mandinka. I think he's Mandinka just because he did the interview in Mandinka. But he, can be Mandinka and he's not Mandinka. He can be speaking Wolof and he's not Wolof. Doesn't matter if he's Mandinka or Wolof or Fula or whatever. Doesn't matter even if he was Gambian or not Gambian. This is seeming for anybody, for any 20-year-old, a handsome-looking 20-year-old, tall, handsome young man to be doing like this, going on Facebook a woman a just in the name of visa. And people going to have those videos for good. And you program it, you know it, you plan it all just for the name of visa. It's not worth it. Please, let's stop risking it all for a basket. Let's tell our young people how hard this country is. The reality of living in these countries. How you're going to be stuck here for years working and sending money. And you can never make it the way you want. until you stop sending money, which is very hard to do, especially when you come from poor family. Or you can get a good job. If you are not lucky, that's very hard to get a good job as a foreign person, especially if you are like me, grow no school, nothing. And you come here as a single mother. It's hard to get a wage, uh, enough, enough uh, job with a good wage that you're going pay your rent, and you're going to send money to Africa and you're going have food money and buying the children stuff money and you have money left that you're going save to build a nice house in Gambia so you can go back home. So then you're just going remain here hoping and dreaming forever. And it's not easy to live in a foreign land. All foreign land have racism. Even Africa do. There's nothing like home. It's not easy to live in a foreign land. A country with different kind a country who don't even believe in God, especially when you believe in God. It's very hard. You look at people disrespecting your God and you can't do nothing. They have different culture that you don't want your children to do. It's a war. It's not easy, people. It's not worth it. And people in Africa fighting over you because now they think you have money. If you buy a house there, they're fighting over your house too. It's not worth it, people. I'm not saying but try to come the correct way. Don't risk it all for a basket. And if you are here and you don't have the right visa, please don't go on Facebook like having sex just so you can have visa. Because if we don't condemn this now, this is going to be a new thing. That's why I'm doing this video. I feel bad. But if I don't see it, it's going to be a new thing. Everybody's going to do it just to use it to have visa. Please. The immigration knows all what we That's why they're rejecting us a lot. But this way is too dirty to continue just because we're African. We cannot come to Facebook Live having sex. I don't know why Facebook allowed that video and the video still on. We cannot continue this. The white people and the other people laughing at us just because we're African doesn't mean that we're not human and we don't have no dignity. We can learn it. Please, people, we cannot continue this. We cannot. I cannot Marrying someone you don't love is enough to get a visa. That's bad enough. Because even in Africa, that's happening. They give you people that you don't love from a young age. It's in our culture. We don't see it as bad as we are seeing it now, someone like me. It's still happening in my country. They're giving children to people they don't love. So you don't know that it's bad. But marrying someone, uh, having sex with someone on Facebook Live, that's beyond. just so you can use that to say that when I go back to my country, they will kill me. I cannot go back now. Look at what I did. No, come on, people. This is going to be the first and last for this place. I don't care what culture you're from. Please, the visa is not worth it. I have the visa from day one I arrived in this country. And I am here for 14 years and I still have nothing. It's like I just arrived in the country. I have my children and I have a roof over me That's all. I don't even have a nice big house. I don't have a car. I don't have a nice expensive bed. Nice nothing. I still send every little penny I have until I can't buy milk because I come from poverty. And I'm still wanting to go home so much, but I'm scared, thinking should I stay here and let my children finish school or not. I'm scared for my daughter's future when I just go back now. because of the child marriage I've been through in Africa and how I suffer there so much and still suffering. I don't want to cry in this video. <sighs> Subhanallah. Subhanallah. Sorry, people. <sighs> Sometimes when I talk about my culture and what I've been through in my culture, you cannot help but getting emotional. and this really damaged my uh, did a lot of damage a lot of harm to my videos over the years i talk with emotion so i use a lot of languages that i shouldn't use that i wish i don't use but i pray that i'm gonna get better as i work on my health self-healing and self growth journey it's getting there hopefully i will be able to I will get to a place that I will definitely watch my language that I use in my videos and just learn how to handle the emotions that I'm not gonna cry or feel emotion. But I don't know if that's ever gonna happen. But inshallah, I believe in life, everything is possible. But people, our community is wonderful, beautiful, rich with beautiful culture. As much as it has that it also have a lot of damaging things that no one is going to talk about. Because to talk about it, you don't just talk about it. You also talk about your own experience, why you have to talk about it. For people to know how real this is. But not just they're going to that they know also going to run away from you and stay away from you, thinking something is wrong with you. You know, for going through whatever you go through in the community, which is even worse. Like someone like me or someone like this guy, people say, now he's gay, let's run away from him. This is why I tell our people that before you go into being gay or doing anything, you have to watch it. Because people will run away from you. And that's the reality with our community. pardon me, that like me in my community. Because I don't tell my community things that is not going to happen. I try to tell my community who we are, as raw as possible, you know, like the raw truth I know about our community. Our community will run away from you after they know that you're traumatized by something or something. And our community will also run away from you when you involve with certain life behavior. So you have to really watch it before you involve in it just because of money. Watch it. It's not worth it. It's not worth it. This community that you're trying to work so hard to have some money so they can respect you. They will never respect you even if you have the money. Majority of the respect they give you is fake. It's just because they want something from you. That's all. When you have nothing, they don't care about you. So why do you have to risk it all to have something so that you can earn their respect? You earn your own respect. Learn how to love yourself, respect yourself, value yourself, know who you are, know yourself what, have self-boundaries, have life boundaries. That's when you will love yourself more, appreciate nature, claim pure happiness. But trying to earn some money and some houses so people can respect you, it's That's fake respect. For example, now, if I was buying the lottery and I win the lottery, people start respecting me. I will laugh because I know already who respect me with me having nothing now. So if you want to respect me from nowhere because Ami won the lottery and now she lives in a mansion or Ami is celebrity and driving nice cars, I don't want that respect and I will not care about your respect at all. Please, people, especially the young You are why I'm talking. lot of people with my age, they're still doing all the wrong thing for money, but it's not many. But some of you 20-year-olds, 30-year-olds are brought here. Come on, people. It's not worth How many of you in prison because you're risking it all for a basket? How many of you gonna continue selling your dignity, man or woman? It's not worth if you don't have your self-dignity, I'm repeating this, you're not going to have nothing because you know that you yourself deserve better. So you're hurting inside. Drugs and alcohol is also, is also not going to give you happiness. Don't even bother. You miserable your life and you run to drug and alcohol to be happy. Ooh, you're going to be more miserable. Don't even bother. Quit them all. Reclaim your pure happiness. I'm going to do a video about that soon. Anyway, I'm going to try to see if I can speak in Wolof. I don't think I can speak in Wolof now, to be honest. This video is going to be too long. I'm, I'm so sorry, but I cannot speak in Wolof or Mandinka. I promise you guys already. Hell, I will just speak a little bit. <laughs> I will just speak a little bit because I promise you guys already, but I couldn't be bothered continuing because I don't want to continue getting emotional and I spend too long to speak this in English. I know it was going to be hard because this is not just a topic that I can jump in. My videos are not something that I can just jump in and done, obviously, because, you know. But anyway, I'll try to just speak a because I promised them already, but I'm not going to speak long like the English version. So thank you for watching. Don't forget to comment, like, share, subscribe, and I'm going to see you guys again. Thank you for watching. allo asalaamaaleykum maa dikk di wax ci xolof waaye duma yàgg wax ji may wax fan yii yëpp loolu laa bëgg wax tuuti rek danaa si def vidéo bu baax because li ma waroon a wax ci hàngale yëpp li ma waroon a wax yi si bëri wax naa ko ci hàngale te yéen dégg ngeen hàngale yéen ñu ci bëri waaye dinaa si def wolof vidéo bu baax fan yii incha allah parce que weer wi Black History la fa ñuy jàng suñ suñ culture jàng self dignity jàng self worth jàng yu baax yi war a jël seen suñu aada yëpp te suñu aada number one self dignity mooy suñ aada wax naa ko si yeneen vidéo yi soo ya waaye tey dama leen bu ko wax rek li xew si vidéo yi ma doon wax si xolof fan yi soo li xew si vidéo yi ma doon wax si xolof fan yi mooy gune góor goo nga xam ne dafa doon uh, def nangamtaan bi ci facebook gune góor góor doon tëdd gune uh, góori góor jigéen ko ku ku jógee Zimbabwe gune góori Gambien góor wax def nañ ko interview démb Babaaja interview na ko démb si facebook live foog naa démb la ko interview xama bërki démb démb laa gis vidéo waaye gune góor gi wax na ne moom góor jigéen gi fa ko fa ko fa jox sàngara mu naan sàngara ay kaasi sàngara yu bari ba pare mu mu ko mu mu yuus dorog bi dorog bu ñuy fóon noonu mu ne moo tax xamutoon li muy def ba war a tax mu nangam taara nit ki ci Facebook live bi fay fen ndax nit ki bu mu defee Facebook live bi on nit ngi waxtaan ak moom muy waxtaan ak nit ki di kaf di ree waxul comme waxi ko màndi nit ki wax na ko ne ko waxal wax waxal waxi gambien ma xam ndax nit ñi seetaan xam ne gambien nga something like that mu wax nanga def something like that mu wax sam xolof daal waaye buñ ko interview démb si soose la wax interview bi waaye moom fi ma la waxee ne lu tax may la fay fen mooy moom wax na ne ci vidéo bi mu doon nangamtaane nit ki ci vidéo bi wax na ne yow de xam nga viewers yu bëri yaa ngi xam nit ñu bari ñu ngi seetaan sa vidéo bi ko ko ne ko waaw wax naa la ne man célébrité la ci suñ communauté bi mu daal di di kaf di ree daal di waxtaan ak kooka daal di di ko nàngamtaan kon nag moo ko tey li tax mu def vidéo bi nit ñi ko xam wax nañ ci beneen vidéo démb ne kii ko def ndax mu am kayit waaye wax nañ dëgg parce que dëkk naa fi yàgg naa fi xam naa mbiri kayit yi parce que xam na beneen vidéo boo xam ne nit kaan ko def mu ngi xool nit ki ni nit ki di ko xool nit ki vidéo ko ne ko te du wax naa ne man góor jigéen laa mu ne ko waaw mu ne ko wax naa ne man maa xamee feebar bi HIV feebari éid bi sida bi mu ne ko waaw mu ne ko kon nag nit ñi wax ne yow war a xun a tëdd ak man nit ñi ñu bañ xéeta yi nit ñi ñu bañ xéeta yi loo leen di wax mu ne ko xéeta mu ne moo ci nit ki ne ko xéeta yi nit ki joo dem leen nàngal seen bopp moom it mu ne xéeta yi dem leen nàngal seen bopp te mu ngi jàkkaarloo caméra wax te naa man di wutoon defu dara ci biti lañ defee vidéo boobu sax moo góor jigéen gi vidéo boobu def naa ko ci vidéo bi ma doon waxee xàngale noonu waaye bugguma ci génne xar bi moom moom fa nekk di wax tamit gannaaw ko góor jigéen gi di vidéo si beneen vidéo mu ne ko bu ma génnee si vidéo bi kon nag moo tax bëgguma woon génnee vidéo boobu xar kanamam bi waaye day moom xamoon na ne ni kan koy vidéo kon mooy ne moom fa doon def lii ngir ngir kayit waaye ba tey bëggumaa génnee xar kanamam bi rek ndi gune la ñaar fukki at la am te kayit gi nit li muy def loo nit bëri na kon nag su ko defee pare di wax ne xar kanamam bi bëggul mu ne ci vidéo bi aka di ko wéddee ka kaya kaya di wax ay waxi daadaa ñu xam nañ ne kii gee def mu tax mu def ko waaye lim def fa jéggi dayo bëpp moo tax ma di ko condamné ndax su ma ko condamnéwul moroom ñu ñëppay jóg di ko def ngir këyit ndax ku ne xam na këyitu bitim réew xamul lu ñu jaralul tubaab yi yëpp xam nañ ko léegi moo tax du ñu nangoo joxe këyit li ma bëgg wax yëpp duma ko mën a wax si vidéo bi like I said danaa def another vidéo boo xam ne dinaa toog wax mbiri këyit gi lu tax warul ñoo jaral yenn yi incha dinaa ko def fàttali leen ma si comment section bi tamit danaa ko def su ma ko fàttee na ngeen ma fàttali ku gis vidéo bi te nga xam ne defa gisoo suma vidéo ma lay promise nii comment bi loo danaa ko def parce que wax naa lu bëri li ma wax li ma war a ko nekk di repeat waaye danaa ko wax si xolof another fànn beneen beneen wéy danaa change yeneen wax yi yëpp ba pare dinaa wax yeneen yi tamit lu ma wax si hàngale exactly waaye yeneen yi dinaa ko change ma def ko bodu vidéo xolof bu gudd ma wax li tax ñu këyit ak bitim réew waru ñoo jaral yenn yi ma wax man suma expérience it ci këyit ak bitim réew suma expérience ci sëy koo xam ne bugguma ko jos bi cos maa bugg a ñëw bitim réew yëpp danaa ko wax si xolof like I said wax naa ko si anglais ba pare te maa may sonn wax suma waree continuer yëpp di wax waaye rek dama leen bugg a gune góor gi soo gisee mu def lii yëpp këyit a taxoon mu def ko ndeke fa bugg a jël vidéo booba jox ko immigration yi wax leen ne man léegi li ma def nii moo tax suma suñu waa dëkk fañ ma bañ ñoom ñëpp ngi wax suma mbir fi mu ne ñu ne su ma demee fañ may rey loolu la bugg a wax pour ñu jox ko këyit waaye lii fa jéggi dayoo lay ka seet moo tax ma di ko wax te baxal leen ma xàq fiil naa baat pour di wax lii bëgguma ngeen foog ne man may yàqal kii këyit wala dara déedéet but this is beyond kii xam na bëri ñoo xam ne lii buñ ko condemnut ñoom danañ génn di ko waaye suñ fi mu ne suñ xamee ne ñun génn nañ condemn ko te génn nañ wax ne këyit tax ñu di ko def dangay gis ne ñeneen ñu génn buggu koo def duñ ko ñemee def ndax danañ xam ne ñun xam nañ ko te immigration yi balaa ñu laa jox këyit fa ñuy def sa research fa ñuy jëw ci ci ci ci internet bi YouTube bi fu ne la ñuy defee research te kon mën nañoo gis vidéo bi xam ne ah kii de soo gisee mu ñëw Facebook live def nangam taan bi këyit a tax mu def ko gisoo mbokkam mi sax ñu ngi koy wax. kenn waxul ne ku nekk góor jigéen rek wax ne man de maa nekk góor jigéen moo tax su ma ñibbee fañ may rey ku nekk xam na ne loolu soo ko waxee tubaab yi dinañ la jox kayit ndax lool suñ dëkk bi nanguwul ko te loolu dëgg la waaye soo waxee ne maa moo tax su ma demee ñu rey ma loolu laay condemn Facebook live bi mu ko def laay condemn di bugguma ñu continuer di ko def ndax loolu fa jéggi dayo tëb kon nag yéen ku ci bugg a jugaat def Facebook nanga mante foog ne moom ngay use pour xam këyit loolu duñ ko seetaan gune yi ndaw yi ngay di jàngal bon ak caga ak ñàkk jom ak nekk xaj ñun duñ ko seetaan këyit jarul loolu su ngeen di nekk góor jigéen ngir wut kayit ida góor jigéen yi dëggantaan ngeen di no wala ngeen di fenn góor jigéen ngeen te du leen góor jigéen wala ngeen di nekk góor jigéen dëggantaan yéen a koy yëg kayit ku nekk xamee na ko nam ko xamee waaye ñëw Facebook di nangamtaan ngir wut kayit duñ ko seetaan kayit jarut yëpp kayit xam nañu ko fi xam téeméeri xatta duñ xam dara kon nag kayit warta jar nga jaay sa dignité waaye lay ka seet dinaa si def vidéo bu leen ñëw Facebook di nangam taan ngir bugg këyit nit ñi duñ ko seetaan nit ñi ngeen di yablu tax tubaab yi xeet yi yëpp yëpp ñu gis leen benn xeet buy nangam taan digg Facebook live just because nit ku ñu leen warut tax ne dañ war a nekk ay xaj ay nit lañ xam war ñoo xam jom ba tey su ñuy def lu ne pour këyit it waaye waay waaye waaye waay na xam fu muy xem lii rek laa leen bëgg a wax ne këyit moo tax kii def lii ñëw na ci interview bi démb bi Babaaja ko mu weddi ko man nag. gëwma ko li mu weddi gëwma ko xam naa ne kayit a tax mu def ko li nit ñi wax ne kayit a tax mu def ko dëgg la kayit gi nag wis naa ko lok su ko xamee su ko xamul warul koo jaral yenn yi xam na ñoo xam ne tubaab yi fañ leen di diport fii delloo ji leen te fa ñuy ñëwaat bitim réew bu ñëwaatul ca réew mañ leen delloo sax ñëw beneen réew man gis naa ko gis naa ko ma xam ko ku loolu daal kon nag kayit warul laa jaral yenn yi so léegi dinaa wax tuuti si soose rek and then dinaa leen gis beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf thank you si vidéo yi ngeen di seetaan ya bu leen fàtte di comment like share te su ngeen sponsor suma vidéo yi dee leen seetaan suma ad please and ya dinaa leen di beneen yoon thank you for watching hallu mbaɗi mandinkool alisalamu aleykum himdillah barikalla ɓeɗum natale ko update naati an ka reaction ke about ñim kambano ala interview ni babaja ha ala alhamdulillah subhanallah astaghfirullah you know bari mandinkol albe sirin dawoda alka alika foko what's the word astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah what's the word I have African accent, you know. I always say astaghfirullah, but I don't think it's astaghfirullah. I think it's astaghfirullah. Doesn't matter. Just say it. I don't know what want to say. You know, Bani Mandinko. Nyinkambano. After all, I nyimbe kele pour ay kaito soto. Hey, subhanallah. Aliko ala kaito. Kaito. Baba jaye nyinkambano interview le. Mbe Pulela just little bit of the interview. Baba Jaya interview minna. I don't ma ma, ma believe ko nying keoya drug le mango believe. But Mbe Pulela just little bit about you know. Hello. Mbading. Maaleykum salaam ini mbare be ñadi. Eh, ok ah, ah ok ah ni wato kono nga jele muso do findi tale e ah, zimbabwe transgender den ayla ne talo dundi fana aya ko ani ite lale so ila ko jama wori and uh, we just a bit about what happened exactly okay um uh, more happened on friday at night Um, and then uh, a uh, last train also, so umfuta sari doro uh, three o'clock at night. Yeah, I'm coming for. <laughs> So coming for the after I musun mutara loading our train station, but it was uh, cold and windy and raining too, you know. <laughs> so coming for the ngai ni be anaran no makonyo ko ikara min ngai ko ngana train or baru in six o'clock. But akonyo okay, it's not on us. I'll you something to drink and then you can wait for <laughs> Okay, so Kavintara, um, also kono eh, wine. You know, sometimes I drink also. You know, I'll have to be honest. Yeah, okay. come, sometimes come in. Thank you, thank you for being honest. Yeah, so wine no dinner. Ako wine no lang but bottle only is not full. You know, it's used mm, before. Okay. Thank so you. can't really. Thank you. Because I did around like three cups, four cups, you know, I don't understand, you know. Mm-hmm. Yeah, mm-hmm. So uh, and I something like I sniff something also. Yeah, mm-hmm. I sniff, but I cocaine. I don't know. I never use those, you know. Mm-hmm. so mbije mbije and so after them I'm thinking about you know I mark out from comes and Nigerian from Gelabang. But I know it can be happen because I see the videos, you know, on Facebook. You know? so um what's I'm also after and see and then said after not friends who can text and call So on the Facebook, I mean, on a finger picture, so I video, so you know. Okay. okay so uh, okay so uh, nga understand abuko den ibanu presentational wado sumia bela bela ba abo atreno baduga so nyin transgender muso nati approach atandila ko nanga tayya dan ko sumia bela den and so fana kuda yela ya so biri yela aya then uh, at the end of the day i i why no bonna because wato dol ika why no minne so biri i why no dila but why no nyin a yeletal already so biri wa why no yeleta ya min then uh, itela miraɗoɗo ɗen waynoñi maybe ay drokolta aya keje wole tundi so ina e kuke mu yalon ima realize So on the another day, Saturday, you know, because it happened on Friday, you know. <laughs> Mm -hmm. So Saturday, I don't know, like five o'clock, you know. Nabu for one, nkaramu na siri to jang. I siri in the sumudo ni mbe kewo ni mbe damendo. So nabu ni kwa na kwa ni kwa baidi. I don't I don't understand it manta diyamu kam mbe dering yana mbe mbuka diyamu no moy fama no hani diyamu dane mbuke reply no so yan so mbi je after na nga ko nga ere kamuna yemal na picture post muna dan diyamu dan ga ko ndi my you my religion don't accept this thing nga to na don i have uh, affairs with you but it was i don't it, it was not like amam amam amam tara so so wonta man ndiyamde are ganne sadaka nden dogay so a ka pos comme ça ndefa dedri nda nde a ɗon ɗon a ɗon de notas nde a on galfran you know Okay. So, okay. So if I understand that, okay, so if I, if I understand Jan Nene, because you insult, that's why was upset, and then he just went and put everything on the internet. Exactly, because you have nothing else to do, you know. Okay. So she, just want destroy my life, you know. I heard never know, you know. Uh, yeah. Just to let you know, it's not only a Nigerian girl. I was uh, talking to another uh, lady from Zimbabwe. She told me that she did it to a Zimbabwean guy, and then he's also a fraud. He, is, also telling people that he can give you a visa. He is scamming people. So all this stuff are happening. definitely, yeah. In the, in the morning, you know, because I know, I know, I know him for like a short while, just like maybe seven hours. Because coming to Ultra like straight, nothing you know, Dandara Nasir. It's like uh, thirty minutes from uh, Nasuwa, I can feel. Mm-hmm. So nothing you know, Dandara. So not born in the Sweden, just well, when you buy them like that, you know, Nasiwa posting. Mm-hmm. But then do get it, but no, I know, I'm supposed to come here but she knows that you know when I'm nimbem from Bulundara in Kusiwa, kela. Damn it. So okay. no man no man from Puerto Rico, because this is just is a shame, you know. No, no, and wole nyama. That's why bring tanga amwe mang haba mang hawa hawa ye because wala namba nunka research ke because um uh ndani sungudo do diam da sungudo nyi atandi ntele ko atani tele nada kulun kilungo inata ni bakwe la we atandi um ndela so kono science ana wo fe mabe afekan ndanga wole mira yaa jël yaa jël so it's not it's even that you know it's drink I drink from her you I think mm-hmm. she poisoned me she, she me you mm-hmm. because abasiri mundo ko kabinda ne ko ke dul diam de ko nyoko abule nyama because na senegal ko ke jama so je wali halon kende ke ko nyoko abule nyama ke samba post dula do camera because she's a celebrity ala dula dim camera la you mm-hmm. oh. mbaadi mandinko ñiŋ kambaanoo be feŋ yaa kaŋ ne wuli yaa kaŋ ne siiyaa keme niŋ taŋ wɔɔrɔ ali lamoy you know yaa tinna ŋa fo ñiŋ kambaanoo ala video mu ka seet maŋ lafi kaa ñaadaa bondi jee nka ala doroŋ ne juube jee walla yaa tinna maŋ lafi kaa bondi jee faŋ because ate ka ñiŋ after ngajere no ah, eh, muso ke wude nyin ka video aka fowo yeko kana put in the video wol yatina ka bring ala video ke all these days nka try ka ala facebook ndiye ala kita nte nte fe wala bari modol bije ka ala nyaada bondi de ronke because himself risking all for a basket nyin kambano abe wuli yala ka foko nyi ye nyi ye nyi atema lonno mimbe kering how atemalo min ɓe kering ni ñin ke wude facebook live camera mutaten aka foko oh you have lot of viewers lot of people watching you aka fa ha yeah, you know i told you i'm a celebrity how mommy yala amam fen long mimbe kere abalon no lot of people watching you you can see the numbers of the people the tiny numbers of the people watching you can see the tiny numbers on the screen you can see the tiny letters on the screen that changing when abe wuli yala aya know aya long i mean what's happening aya care i don't care aya dolonyi ming i don't care aya ako aya drop useless whatever but aya lon exactly akamin keno aya care pour aya kaito soto mol minu ya long the, the idiamuta in another video yesterday nga moy idiamuta in the other video from re-enter the gambia ajiye minke iko ate ate ñiŋ kele pour kayitoo wo sunkuto miŋ ye a fo ñiŋ kambaanoo loŋ ne aduŋ tooñaa ñiŋ kambaanoo a kele pour aduŋ toolu meeta jaŋa kayitikuo loŋ ne a kele pour a wo video ñiŋ samba aniŋ toolu la video toolu ka ke a wo evidenceolu bee collect a ye samba home office a ye ko na, community they all angry with saayiŋ niŋ taata gambe ye wolu be n le but ntoo ñanta ñiŋ kan kondem la waaye

mool min laftan ñokode juɓe la wol yetaje ye koɗo jo ye ñokode juɓe not yena ñokode ko online dindigol ba juɓe la iɓe dindigol tiñala iɓe just community be tiñala ñokode kuwola what the hell man ñin kambano you know alinga bula ka risk all for a basket just because of kaito ñin kambano sai haninaye kaito soto ala dignity be tiñala ala life be tiñala naa man naa manta ala mbe advisor ni ye ñim video moy ni ya taye ta ala ye always a fo astafurla ebe silin dawoda a fo astafurla astafurla all day ila kuruso ñini ya muta taye ta jannaf sali taye ta all the time ye sit down ya fo astafurla ye sali ye tuubi ala ya fo ala balal ye ñim min ke ya fo ala ye fana ye kayito soto bari alonko kayto hani muni moye deport from jang hani sayni ala koye ɓe nana tubabu du kotake ika naale nga mollonde mu yala mol ye deport fan mol nata ka murun tubabu du kotake ika murun banku do koto dolɓe jang sanji keɓe iman fengo fen soto tubabu du manke fenti i swear to god ntegamin long ni ngalo num tenala jang nga fo atelier all the time kana tubabu du do simminde iɓe ko ɗo sotola foyta dow ku jawol ke pour yakko ɗo soto ntol jama nata jam man karam baka gambia mam mecce bete ma soto kodu do mani ngon soto nkatale ngata nga ki gambia ha ah, mbuka fen soto foyeta kudol wafi wareta kudol ke imanyanna min kala just because of kodo ya risk it all for a basket mose soronno isi sa soto no je dignity and self love is gone you are risking all for a basket please kambanum tolla diningon tolla kambanol I cannot watch this any, longer. Allah stop carrying skid all for a basket. Allah Allah self dignity in self worth long. I know to the community buka wo karan din tola. Wali at nan tol batang. Ntol mo fi community buka tol karan self dignity self love. It's to do with nyin din jamal to the community kamin soto. And in tola kewol most of them they eh, eh, love for muso. And in tola muso they don't have time. Ntola bamal jama can tol protect and itol jama kata marsiwoto wala kata foro kono wala kata dow kuwo kay kakko ɗo ñini kana eh, tabirola fana kana kurola so ika batali they don't have time to, to murder you and nurture you and spend time with you aɗum ite as a young person tolla community jama ntol we go through lot of abuse liparu jama child marriage other things and all this can make you lose your self dignity and self worth you're not gonna know who you are and your self worth anymore Waliatin and told we always risk it all for a basket. I know this. I know to the community la problem. But don't you think it's time for Ntolia learn how to gain ourselves what? How to gain ourselves dignity? How to know how to limit what we are doing and when to stop? Don't you think it's time to leave Wakarang? Nintol Makarang, Jumale Bakarang Dilantoli. For how long are we going to continue risking it all for a basket, the whole world laughing at us? kaito man jari a bela biko kaito hanen ya soto is not guarantee ite be kodo soto la soto la jani du ta soto la do ko woto kaito aman kanu warante stuff just because of kodo ma fo mol yo bula because wo is in our community already from childhood mol be kewo dilal mi yalo ima kanu fang So we don't know who we are. But can't risk it all for a basket. Don't you think it's time Puntoli Wobula? Until, until we stop risking it all for a basket, we will never develop. A community that don't, have self-dignity, don't have self-worth, don't have self-love, huh, ah, will never develop. Nyi mwol ntol lafta minu pilis la. Ntol lafta kodomis la pul mwol yen to respect. nyimmoolñande ten to respect la ni haɗama ɗimomi respect hani ni yekko ɗo soto ati respect la ite ye fan respect ye fan kano ye fan law ye fan protect ye nature respect ya kano ya appreciate ye learn how to have self love within ite ni a tara ye ala lon ne fana tara ye ala lon mo wole be makoy la a be happiness dile la anin pure self love and self dignity bari kodo a buka happiness dilila mo jamale because of kodo yemin soto mol be nala ye rob mol be nala ye you know because of moto warante korda warante everything ila badi ngol fanan ka ka ka kele all time because ila fansun kodo aliya lo ne kodo kam ka kam mol batandi nyaa billahi nal ya lo albal fanke la moti it's very painful kanto la community jubeta please man la fiñu video too long because I already been speaking you know in English and Wolof and everything and everything just this is why I, don't like to do all languages in one video because then it's going take me all day to explain things but look ntoo buka taraka diyaamu na community for nothing it's because of the pain tola community yemin ken tole that's why we cannot stop about it we cannot shut about it But please, we also not talking just pour Aliye just lamoy Aliya George Nyimpa Sentokalo and friends. No. It's also because the love we have for you guys. We don't want to watch you guys suffer, continue suffering. And us all. Please. Alinga Lonko, as we grow older, even though our community let us down, they don't teach us self-love, self-dignity, self-worth. We can learn it and regain ourselves. atol be nalbe dolo use kan ka drug use ala bula alyal fanke muti you can get out of anything if you want to get out of it ala bula ka the wrong friends soto ala bula ka hang with the wrong people i say this all this time that i start talking four years i've been saying this ala bula ka try all the wrong thing in life calling it i'm just having fun or tubabudu is stress ni tubaabu du stress you have choices to to to make there's so many different things to make you happy go for a walk read a book listen to some videos that you can learn something from you have other alternative that is healthy than using jumper bridge alcohol and drug for pleasure and hang out with the wrong people. It's going to bring you more pain. I'm telling you that. The quicker you quit, the better. the more you do it, the more pain you have to, you have to, you know, the, the more pain you're creating. They have big consequences. So quit all of these things. If funky mood, along mune nati tubabu young. I told you're too young for this. Wasting your life for nothing. Why would you do this? After I'll struggle to back way, front way, aliena futajang. Aliena alia risk it all for a basket, alia betinya, kahanga with the wrong people, ka all the wrong thinking. Please allow Funky Mood. I know life is difficult and this year is even harder because of corona whatever. But allow Funky Mood, allow Alamuta, allow Sally, allow pray, allow stay clean, stay from trouble. Ala benalale inshallah, allow stay strong. Ali fata nyinku jawoli ali stay strong please nte patata diamola ala benala nal ya believe bari nal man ala believe ali yamira atole mu alfanso atol be life dino la alfangoye alte life drone be life dino la atole after you try it is up to Allah pour aye happen so don't try it with all the wrong things ala si kamfano itelefang e aye jube after we keep trying with doing all the wrong things, don't think that we have a limit now? We should stop now and sit back and leave it with Allah now and try to do the right thing. How many wrong things can we do, you know, just to get one thing that we might not even ever get, or when we get it, we not benefit from it? It's too late then. Please. I know kaito more kind of with all kind of way. I don't tell fango yaso to live all kind of way. I know. Ni alako ibastola ibastola. Ni alako itasotola nyin country wala itasotola sign. Even if you risk it all for a biscuit, itasotola. So nyin Facebook live sex alala dignity claim al fan long mol meta ka fa tubabo ye kon temu kewu so wol ye kaito either you are or whatever but kana facebook kewu de ke or just sex in general please alingan tola self dignity long nga nga sort of boundaries in life life no one is perfect we all had the wrong friends and did the wrong things but know when to stop know even how to protect yourself from doing it So this is just what I wanted to say today. Thank you for watching this video. Don't forget to share, comment, like, subscribe to the channel for more videos. And Barjela inshallah next time. Alinyin kambano ite fango nibe nyin video jela. Nyin video je. Kana stress about this. Kana take this thing too stress that you know that is gonna harm you. It already happened. You are stressed or not, it already happened. You cannot change nothing. What you can do now, though, is to prove to the community who you are by changing. All new thing coming for you, Stay away from bad things. Stay good. Pray to Allah. Be good. Be determined to be good. Allah bay you har yenatila. Ite you are young and you are inyatale. You are handsome and young. Mashallah. Allah bay har yenatila. Taye taye dua ala ye makoy. Ibama fanan adua ya fay aye makoy ya embarrass minna ya put in sim ya malum ni nyame. Afay aye makoy a dua. Yes, stay good. Ala benala. It's only ala mimba harje dilantole. Ala drum. Modul nata jang day one ye kaito soto. But sanjit came later. They still halake. Warante yana kudoke imanyana minkela yana stay prison for 10 years. warante ala ye naa ye ye wandi niyo taafang hani ni kayito be bul so ñi kayito is not worth anything it's not worth certain things certain big things So please, don't take it too serious. Like I said, it already happened. Don't allow this to ruin you. You can change it to something positive and prove to yourself that you can do this. After you back way taye naja, yaje back way dimita nyame, tubabu do dimita le back way or front way. So stay patient, stay loyal, stay good. Can I just because tubabu do dimita ye weak, yet certain things ke. It if when you are strong to make it in the back way, then you should be stronger than this. Please, I wish you all the best and I wish everybody else all the best. But yeah, I just pray that Nying is not to continue happening. And yeah, thank you for watching. Take care. Bye. See you again